kon nag nañ ko jàngat ci ci sa dimension intellectuelle sëriñ Babacar Sy bu ñu doon jéemantu jàngat ko si sa dimension intellectuelle lan lañ fay fekk. Ah, waaw Talla jërëjëf laaj nga laaj bu am solo xam nga dimension intellectuelle sëriñ Babacar Sy boo ko doon jàngat faaw nga am yoo jiital ndax xam-xam dafa am ay façon am na yoo xam ne riwaayaat la mooy xam-xamu téere am loo xam ne diraaya la mooy di Serigne Cheikh wax ne moo nekk ci dënnu mag ñi am yoo xam ne la du ni yaat la mooy yi nga xam ne yow ak sunu boroom rek gën a ko seq mais lii wane dayoom ci yooyu mën nañ ko delloo rek ci xadis bi yonent bi wax ne qiimatul mar'i maa yuxsinu nit booy natt valeur am da seet lim mën xereñ ci bu ñu demee ci wàllu xam-xam mën nañ ko génnee ci ñaar mooy wax walla bind wax walla bind loolu mooy bi mu amee ba pare mais bu dee pour wut ko nag dañuy wax ne professeur bi la jàngal nu xam-xamam ak expérience am tollu yow miy jàng am nga sens ngir am lu toll noonu walla lu ko raw sunu maam Serigne Babacar ki ko jàngal moom moom la Serigne Alioune wax ne moo doon ñeenti yonent muy Seydil Hadji Malick gannaaw bi mu jeexalee alquranam lépp lu mu jàng ci wàllu xam-xam Seydil Hadji Malick moo ko jàngal Seydil Hadji Malick moomu moo rawoon te loolu sunu maam Serigne Babacar si moo ko wax wa bahru ilmika yakfi si saahiluhu siyaani fihi qaribun baidun sa géeju xam-xam bi tefes gi ci la gaay yam géeju xam-xam googu moo sotti sunu maam Serigne Babacar Sy ci fi muy tàmbalee mooy iqra mais aussi géeju xam-xam boobu moo yar Serigne Babacar Sy mooy jikko yi nga xam ne moom lañuy tuddee jikko yi war a njëkk ci nit ngir mu mën a nekk koo xam ne eh, dina apt suñ ko mënee tudd pour yàlla sélectionné ko defal ko sutura boobu ki Seydi Hadj Malick moo ko yar mais Seydi Hadj Malick moo ko tàggat ci jaamu yàlla maanaam gannaaw bi nga jàngee wasjud mu yëpp mu symbolise mbooleem jaamu yi eh, boo amee xam-xam maanaam yàlla boo xamee ni koy jaamoo doxal jaamu ga ci teggiin ak sellal mu jegeel la boppam loo jege nag bu yàggee nga jël jikkoom la cay xam-xam la cay yaatu la cay may ya ca dess nya lol nak ni mu feñe ci sunu mam Serigne babakar ci ci genné ko ci mbind nangoo naa ci làmmiñu mam Khalifa sar yalla na yok wiram ak fanam Neko ne na ci làmmiñu Serigne Moustapha si jëmmil ne ko dama bëggon nga waxal ma Serigne babakar si dimension intellectuelle ko lolu xajut ci guddigi waye pour jox la ci misal bu gatt mooy bu daan gàmmu benn bayti lay jël ci xilaas zahab te mag ñi nga xam ne ñoo jamono wante moom ñoom sëñ Aline Gueye ñoom sëñ Moussa Niang ak mag ñooñ ñoom sëñ Cheybatu Fall mag ñu mel noonu bu ñuy ñëw ci guddi gàmm gi dañuy bokk seen kaye mais bayti bi lay jël di ko tas ñiy bind nee na seen kaye dina fees te bayti bi du jeex xam nga kon bu dee ci wàllu exprimer boo xam ne daf ko jaaree ci wàllu kàddu kuy firi benn bayt ki yore kayam di note kayam fees te bayt bi jeexul loolu loolu loolu la ci bu dee ci wàllu bind nag mbindinam dañu miinul di ko gisee ci bind kër yi nga xam ne ñoom la ñuy lire seeni téere dëgg la sax li ñu jot ci téere yi sëriñ kër si bind bariwul mën nañu wax ne dawaa wiinam yi lañ ci jot diwaan bi mu def ci yonent bi mooy hamziya bi man dama am jafe-jafe bu rëy ngir jàngoon ko ndax ku jeexal sonraaw sitta gannaaw boo jeexalee maqaam ak daaliya téere luxa yi lay jàngal nga xam dégg arab man ko wax xam baat lu muy firi boo leen ko tegalee ñaari baytu yu njëkk yi rek ñoom du ci xam dara tafaaraqat bi nawaaxil xibbi xansaaw doolu boo leen ko tegalee rek xësal bi duñ ci duñ ko mën a xam boo leen demee ci biir diwaan bi nga indi leen fal Mustafa Mustafa soofa bi safwatihi rabbal baraya bi maa yurdihi safwaa duñ la ko mën a firil benn bayta rek ci biir te loolu du ci téere boobu kese da am problème ngir ñu leeral la téere bu bind di ci jàngale chartay tariqa bi mooy bi mu commencé ci tasababa abdun saliku nahja maliki bi jamee shuruti mustaghisi bi maliki boo boo koy liir daf ci indi ay kalimaat yoo xam ne ay rawaabik nawaabik xeeti baat yoo xam ne eh, da daan mat baat bi yàgg naa yër te waaye tey laa ci soog a yëpp boo demee ci dictionnaire pour seet ko doo ko gisee fenn même boo sa xam-xam màccee ci li ñu tuddee fiqhul luga nga xam ne mooy xam-xam bi ngay mën a amee dëgg-dëgg dégg kat baatu arab lu muy firi loo ci géeju géeju booy ñëw ci ay mbindam da nga ciy fekk baat yoo xam ne da nga ndax li arab la moo tax kalimaat yi muy jëfandikoo mooy verbe yi euh, kii mooy dafa xaw a dugg sax ci cadre ijaz bi ci alquran bu ñu la ko firi doo ko xam loolu benn beneen bi mooy liy wane taaru mbind ci wàllu arab ñu tuddee xam-xam boobu ñu tuddee balaaxa booy liir xasida sëriñ baaba kër si dangay fekk moo ko fees dell li ci nekk maani li ci nekk wàllu bayaan ak ci badia surtout ci côté badia bi rawatina lu ñuy tuddee jinaas mooy ñaari kàddu yoo xam ne dañoo bokk nuñ leen di bindee waaye bokkuñ lu ñuy firi ma jox la ci misaal rek ci ay xasida la mais mooy bayti bu njëkk bi mu commencé xasida yi lolou yombul way keur yo xamé dañ koy indi parce que arab yi même buñ la koy jàngal dañuy indi ama serigne mos ko jàngale taraqtul baba hatta kallamatni kallamatni falamma kallamatni kallamatni nii këlla bokkuñ lu ñuy firi ñaari kallamatni serigne nii sëriñ bo démé ci bi mune hal min sabilin ila salma bi yabrini riini taw qurti xaali ilayha kaana yab riini baatu bu ñak bi ak bu ñaaral bi bokkuñ lu ñuy firi yabrin bee dëkk la bii yett la verbe la mili li mawlaaya nafsi sayid alxaaji allaaja daa il hawa wa nafsi walxaaji alxaaji ak alxaaji bokkuñ li ñuy firi te ñoo bokkuñ leen di bindee wa qalbiya fi lalaaqati qad kafaani ana wallahi xaqan fii kafaani kafaani ak kafaani bokkuñ li ñuy firi ma dëhru jaada bi malikin wa ka maliki ka dëhri marra bi malikin للمالكي نياري مالكي بوكول لي نيفري فهل يجود اخي للمشتكي الاسي دهر مذاهب نحو التب والاسي اسي بو نديك بي اك بو نياري بوكول لي نيفري قد انقطعت للارض عنك المجامع وباللهف والاضرار ها انت جامع جامع اك جامع بوكول لي نيفري فهل بدا برق ثغر من ثنياتي am lamu barqin bada bayna na suniyat ak saniyat ño bokk ay lettre mais bokkuñ ba légui luñuy firi nonu nga koy topé tasabbab abdun salikun nahja malik mais mi ka sa da ngay dem ci benn beyt mu répéter la benn bat ci bir beyt bi te bat bu ci nek bokkul ak lu lu melni warisal imama min al imami bi kulli ma amara al imam min al imaami al asdaq imam yoyu benn bu ci nek ak fa muy delluwaat waaw maanaam lii wane peg gi mu peg xeeti xam-xam yi ak anecdote yi xam nga li gën a doy waar te gën a jafe mooy boole ñaar langue yu bokkul ci benn xasida te yàlla da ko ci mayoon boo xoolee boole na français ak arab ci wa inna nii xad kuntu min ahli ndari wa maskani biha la daa di boobu daf ci daf ci wan fi mu juddoo mais waxay suma laqita minhum wahida yaqulu mais eh bien eh bien <laughs> kunu shahida loolu mayam la beneen bi mooy wolof ak arab indi na mën nañ ci tudd rek wa waqul li na ñu ñëw talaata ca tisbaaram ida addu salaata yaa ngi seetlu rim bi talaata salaata Mohamed nee na ki ñu amal seedeel leen na ki ñu amal affaire mooy boroom ngëneel tey nag Serigne Babacar si la ñu amal affaire maintenant ci li ci li ñu expliqué ñoom ñaari sont terribles mais ci li ñu expliqué nan nañ ko mën a nattee ci mission wu Serigne Babacar ak son empreinte socioculturelle jërëjëf Talla xam nga bi may tontu sànq dama la wax na la sutura yàlla bi ni mu feeñee ci dundu sëriñ Babacar yépp mën nañ ko tënk ci ñetti verbe yi ñëw ci iqra suratul alaq iqra wasjud waqtarib dama doon wane beauté bi nekk ci mbindu sëriñ Babacar si ñi am seetlu ñëpp yëg nañu ne kii li mu bind du loo xam ne daf ko jàng maanaam kalima baat yi muy jëfandikoo ci mbindam ak ci njàngaleem feneen lay bayee ko jël léppam jébbal ko boromam gannaaw bi mu tànnee comme ni ko oustaz waxee ci xasida bi nga xam ne mu ngi ko indi ci xurufu salaatul fatihi a xam ne ni ko Seydil Hadji Malick wéyee noonu la ko wéy mais moom posam ci benn guddi la ko wéy dafa julli timis tëju bi muy julli fajar mu jeex mu wane niñ ko ci mën a dégge mooy li sëriñ bi wax ne mooy li sëriñ Babacar def te mooy ñett yi nga xam ne daf ko teral te teraleewu ko ci fi wolof di déggee teraanga suñ ne diw dafa teral diine xel yëpp li ñuy daj mooy moo mën a julli dëgg la sax sëriñ Babacar si moo dàqoon a julli ñëpp ndax boo koy qualifié danga koy boole ci ñi ñu wax ne bakkaa u laylatihi sajjaadu xalwatihi xaw min xawfi malikihi yastazibu taaba yàlla dafa am jaam ñoo xam ne fu ñu toll seen seen guddi seen ronkañ du fer dañuy jooy rek seeni jët du noppalu dañuy sujjóot rek ndax teraanga ji leen yàlla defal ne ko sëriñ Cheikh waxee ñaara du nelaw ki yàlla defal teraanga mu fas yéene ko sant ak ki xam ne dafa iñaanee ko yàlla defal teraanga muy xalaat lu ko yàqal mais ñoom ci pour delloo yàlla reconnaissance pour delloo yàlla njukkal mu ne mu teral diine te teralewu ko julli mais charia la ko terale te mooy li yàlla indi muy garde fou nga xam ne moo war a organiser lépp ba kenn du déraper sëriñ Babacar si daf ci teg tànkam te nang may wul itam kenn wàcc ko la firnde mooy anecdote bi nga xam ne moo amoon shérif bañ jëloon ndax shérif la màkk la dëkk ñu bokk jiitaloo jumaatu Tiwaawan pour protéger diine dafa wax ne wax leen ni ñu ñu sëlmal li tax mooy moom ki ko formé muy Seydil Hadj Malick li ñu ko jàngal ci fiq ak école bi nga xam ne ci la nampee dañu wax ne musaafir jumaa waru ko te ku jumaa warul warul jiite loolu mu teral dina mais terale ko charia nee na tariqa ama sëñ baaka bu ñu waxee dañ ne suufi la nit la koo xam ne dafay dund suufiyanke la buñ ko waxee tariqa taxaw mu ne mu teral tariqa mais teralewo ko kurus mais xaqiqa la ko teralee te xaqiqa nag euh, bëri na ñu koy woote woo or que la ñuy wax seen waxi bopp la comme seen Hadj Malick ni mu ci doon dénoncé ñenn ñi loolu fees na ci jamono koo gis mu ne xaqiqa laay dund par exemple ka ñu waxoon ne ko kaay julli mu ne man julli woon naa ci azal jéem a woote xaqiqa mais sëriñ bi da ko bàyyi ba ñu taaj añ bi mu ñëw raxasu bëgg a yor loxo mu ne ko pour lu tax añoo woon ci azal comme julli woon nga ci azal ma mënoon nga añ ci azal maanaam baatin woote baatin boo xam ne dafa contradictoire ak charia loolu kenn du ko tuddee xaqiqa xaqiqa du weddi charia day ñëw pour dëgëral ko sëriñ Babacar si noonu la teralee tariqa mais du ay wérde yu bari beneen bi mooy dund te dund mooy tax nit ki mën a dund ñaar séq ñaar yooyu yëpp dafa teral dund mais teraleewu ko ñam te bu xel demee ci dund rek li capitaine di dund mboq ak ak dund du benn mu ne teraleewu ko ñam mais ko teralee ngor ak man moo tax mu daan wax ci wàllu xikmaam baatam yooye te mooy moom jàpp na ne julli dëgg-dëgg gor piir moo ko mën a def yii tax nit nekk gor boo ko respecté nekk jullit gor du tiit ba fen ñaari <laughs> baat yu gàtt gor du tiit ba fen loolu déjà li mu ci réglé diine bul xam gor du jaaxle ba sàcc gor du ñàkk ba ñànk gor du soppi yii critères yii muy tabax moom ki muy tabax mu nekk gor bu ko respecté fa muy nekkee gor rek fa la nekkee jullit bu set moo tax euh, loolu yëpp day delluwaat ci tànn na yàlla li ci des nag fi ne nii day bàyyi yàlla tëral programme mooy li mu wax de histoire maanaam xisaab ki ñëwoon ca gàttam ba ndax foofu fan lay mën a dugg ci niveau xam-xamu Serigne Babacar Sy xam boroom xam-xam gannaaw bu ñu waxee ne diw aalim la dangay dégg ñaare ñu naa allaama imaam Sàmba nee na àllaama mooy ku mën a jàngale loolu day dugg ci cadre sama dégg day dugg ci cadre pédagogie pédagogie bi mu respecté mooy xaatibu naasa bi qadri ala qadri uqulihim xam nga la ko yàlla xamal ci biir muy nekk ci rab yi te xaj rek moo ko dul am bu ca tàmbale woon ak ki muy laaj te kii di laaj masalaam sharia lay def du save moo tax mu mu mu mu orienté ko ci li ko gën a jege te mooy jox ko ngooñ wala nga jox ko yàpp bi boobu jàllul mu yëg moom ci deusième niveau bi mooy bett ko dóor bu meemee nga xam bu fekkee dafa baw nga xam ne lii la loolu moo tax respecté xaatibu naas ala qadri uqulihim niveau ki mu doon jàngal la ay mustawaayaat la di li lay wax ne la bu xamagul dara danga koy jox loo xam ne jàpp nga ni mën na ma ci faj soxlaam su gënee compliqué nga yéeg bu gënee compliqué nga yéeg moo tax kooku ci cadre pédagogie ci lañ ko ci ko jàpp na ci lañ koy dugal mais duñ ko delloo ci niveau d' intellectuel xam réponse bi ak ñàkk xam réponse bi loolu mooy dugg ci niveau d' intellectuel bi mais nag naka la koy régler problème bi kooku ci pédagogie ak méthode jàngale ci lañ koy dugal

jeex na fi ak diaspora sopp na bi dafay tegu ci dëgg ànd ak jub ak jubal diaspora sopp na bi mooy solution bi wóor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 Al Maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal Nank dem ba ci pharmacie Al Maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie Al Maktoum ay produits disponible na partout au Sénégal ak sax ca bitim réew bu dee yéen ñi nek Sénégal joko leen ak Mam Cheikh Tidiane Diop numéro bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nek ci douane Italie joko leen ak El Bachir Faye numéro bi di plus 39 338 916 03 90 bu ñi nek ci douane Espagne Barcelone ak li ko wër jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro de plus 34 602 11 12 28 yéen ñi nekk ci Angleterre wote leen ci plus 44 77 22 08 89 57 yéen ñi nekk ci Maroc joko leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro de plus 212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie Al Maktoum moy indi nañ leen ay savon yu bes tak ngir xex à lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa teen ba muy nes nes kon nak gaw leen contacter pharmacie Al Maktoum ndaxte kat yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al